Faye mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum infrastructure ak wàllum transport moo ko xamle yéen gi di réew mi quotidien xëy di wax alhamdulilah contrat ba négocié nañ ko jamono ci réewum Sénégal nee na rëjëx dugg na ci li nga xam ne maanaam mooy ci biir capital bi na nga xam ne moom la autoroute bi di doxe lépp Sénégal jamono ji ma nga ca biir dugal na ca loxoom yéen gi di li quotidien ak 24 heures nee na gaña gaña ci autoroute à péage bi jamono ji daal at jot 1000 francs la ñu doon jox Sénégal léegi nag lijjanti nañ ko ba ñuy jox réewum Sénégal at mu jot lu toll ci 800 millions ci li nga xam ne mooy foncier bi maanaam fi autoroute bi jaar Dakar ba AIBD yéen a kaay gi de Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci vaccin yi nga xam ne moo jëm ci mbirum coronavirus ñu wax ne képp koo xam ne ñàkku nga ci maanaam mën na laa aar ci wopp ji yéen a gi ne na ñàkku bii nag di AstraZeneca jamono ci conflit géographique bu mag moo ci am ci adduna bi yéen gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu vaccin boobee nga xam ne mooy AstraZeneca am na ay effets secondaires yu day waara day waara ca bitim réew waaye nag ko nemmee ko ci réewum Sénégal mi quotidien mooy wax nee na réew mi di Sénégal am na ñenn ñoo xam ne jot nañu leen koo ñàkk seeni seede ak seeni témoignage yu garaaw yu doy waar ma ngi ci réew mi quotidien am na benn waay boo xam ne nee na baayam fii ci Sénégal dafa ñàkku-ñàkku bi di AstraZeneca waaye nag ba mu fa jógee dafa paralysé maanaam crise AVC la am ba tey ci biir journal bi di 24 heures waa Forum Civil ñoom nag li nga xam ne jamono ji ñoo ngi koy sàkku maanaam mooy 1000 milliards yi nga xam ne duggul nañ ko ci coronavirus bi ñu daal di koy leeral Sarr ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na njiitu di président Macky Sall xooqutal na sëkkatal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ba mujjee koo def nag koo xam ne nee na rëjëx ci li nga xam ne mooy politique Sénégal te kenn mënut ko see seppi Macky Sall bu ñu waxantee dëgg moo fexe ba opposition bi yëpp yëpp yëpp nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko loolee njiitu réew mi di Macky Sall moo ko créé te nekkul mbir moo xam ne mu baax la ci moom Assane Samb ci réew mi quotidien nee na lii nga xamante ni moom lañ doon tuumaal Ousmane Sonko mënoon na ko yàq ci lu jëm ci wàllum politique waaye nag jamono ji dafa baax ci Ousmane Sonko mbirum Adji Sarr mi maanaam dafa defaraat Ousmane Sonko daf koo gën a may dayoo Ousmane Sonko kay bay ba mu remercier Adji Sarr ba tey ci journal bi Assane Samb nee na njiitu réew mi di Macky Sall jamono ji lenn kese rek dong maanaam moo koy noppal ci Ousmane Sonko mu amnistie ki nga xam ne mooy Karim Wade ak Khalifa Sall su ko defee Khalifa ak Karim ak Sonko ñoom ñëpp ñu nekk ci ëttu politique bi mbir mi nag daal di pëcc xoowaat waaye nag su ko Macky Sall nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko te bu boobaa du baax ci mooma Ousmane Sonko journal bi di laas ak l'observateur xëy duñu xalifa Khalifa Sall waaye la nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko ñoom nag nee nañu daal poñ yi nga xam ne jox nañu ko Khalifa général des Mourides ñoo ngi ci xaar Macky Sall ngir mu daal di koy jëfee te bu ko jëfewul danañu jàkkaarloo ak moom Ousmane Sonko daal di wax ne ñoom dinañu taxawal ab coalition boo xam ne képp ku ci bëgg a daal béy boo nga ñëw te amul lenn loo xam ne dinañu ko ci xaar di layaam layaamal déedéet Ousmane Sonko nee na coalition bi ko taxawalee daal maanaam duñu xaar kenn yéen a kaay gi nee na Khalifa bi nga xam ne moom la ñu nar a def ak Macky Sall dina a kaay la sa nee na tout li nga xam ne mooy xëej nii xula ndax Khalifa Sall mii nga xamante ni gis naa ko ak Ousmane Sonko nar ñu fee taxawal nag ab coalition boo xam ne dina dëgër këccee yéen a kaay gi du ne en tout cas daal ñi nga xam ne ay xeltukat lañ lu jëm ci wàllum politique nee nañu Macky Sall su bëggee noppalu ci Ousmane Sonko na daal di am ne see Karim Wade ak Khalifa Sall Macky Sall nag bi nee na du nangu kenn di teg pression ci moom Ousmane Sonko ko ba deuxième vague bi fekk la fii na manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi ñi ci ñàkk seen bakkan lim ba na am na beneen xale boo xam ne amoon na ci ay gaañu-gaañu mujjee naa ñàkk bakkanam yéen kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu discours bi nga xam ne Ousmane Sonko doon na ko yëkkati discours anti français Ousmane Sonko soppar ñu na ko soppar ñu na ko nooyal na discours ba njiitul Pastef nooyal na discours ba yéen kaay gi ne na Ousmane Sonko nee na moom daal bañul benn yoon ñi nga xam ne maanaam ñooy français yi xeexam du combat français yi xeexam mooy intre Sénégal maanaam partenariat équilibré yéen kaay gi de sat xëy dellu ci ci Ligue des champions match yi nga xam ne jot naa am niki démb yéen na Real Madrid ak Manchester City